juróom ñaar fukk ak ñaar ñam wiy joxe dund gi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte nag tey ci li ñu mën a dellu si ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni borom bi yeesu waxe woon ak mbooloo ma ëmb njàngaleem ci lépp yu fees dell ak dëgg gu sax gi waaye lu ëpp ci mbooloo ma jàppul woon li léebi yéesu yi di tekki ndax seen xol yu dërkis fonk ñu yëf ya ca kaw waaye yi ci suuf rekk lañu faale woon yéesu nekk musalkatu bàkkaarkat yi taxul woon lu ëpp ci mbooloo ma topp ko ndimbal li mu leen doon defal rekk a taxoon ñu ànd ak moom tey ji nag dinanu dégg yeneen wax yu génne ci gémmiñu yéesu te gis ni mu dëggale ay waxam ak yeneen firnde yu jóge ci yàlla loolu moo waral sunu njàngum tey di tudd ñam wi joxe dundu gi léegi nag nanu jëm kanam ci téere bu sell bi di linjilu mark sar juróom benn mbind mi nee na gannaaw loolu ndaw yi dajaloo ci wetu yéesu ci kaw loolu yéesu ne leen nanu beddeeku dem ci béréb bu wet ngeen noppalu fa tuuti waxoon na loolu ndaxte amoon na ñu bare ñu doon dem ak a dikk ba amuñu sax jotu lekk noonu ñu dugg ci gaal dem ci bërëb bu wet bi ñu dem nag am ñu leen gis xàmme leen ñu daldi jóge ci dëkk yépp daw jiitu leen fa bi yeesu génne gaal gi mu gis mbooloo mu rëy yërëm leen ndaxte dañoo mel ni xar yu amul sàmm kon mu daldi leen jàngal lu bare ca ngoon sa taalibe yi ñëw ci moom ne ko fii àllub nen la te léegi mu guddi yeewil mbooloo mi nag ñu dugg ci àll bi ak ci dëkk yi nu wër jënd lu ñu lekk waaye yeesu tontu leen ne yéen jox leen leen ñu lekk ñu ne ko xanaa nu jënd lu tollook peyug juróom ñetti weer ci mburu jox leen ko ñu lekk yeesu laaj leen ñaata mburu ngeen am dem leen seet ñu dem seeti ne ko juróomi mburu ak ñaari jën noonu yéesu sant mbooloo mi ñu def ay géew toog ci ñax mu naat mi ñu toog nag ay géewi juróom fukk ak téeméer bi loolu amee yéesu jël juróomi mburu yi ak ñaari jën yi xool ci kaw sant yàlla ba noppi mu damm mburu yi jox ko taalibe yi ngir ñu seddale ko mbooloo mi ñaari jën yi it mu seddale ko ñépp noonu ñépp lekk ba suur te it ñu dajale la desoon ca damiti mburu ya ak jën ya ñu nekk fukki pañe ak ñaar yu fees dell ñu lekkoon nag matoon na limu juróomi junniy góor ci kaw loolu yéesu sant ay taalibeem ñu dugg ci àll bi jàll ba betsayda bi mu yeewe mbooloo mi bi mu tàggatoog mbooloo mi ba noppi mu yéeg ca tund wa ñaan fa yàlla noonu guddi jot fekk gaal gi nekk ci diggu dex gi te yeesu rekk moo nekk ca tefes ga booba mu gis taalibe yi sonn lool ci joow gaal gi ndax li leen ngelaw li soflo ci njël nag mu jëm ci ñoom di dox ci kaw dex gi ba xaw leen a raw sax bi ñu ko gisee nag muy dox ci kaw dex gi ñu foog ne njuuma la daldi yuuxu ndaxte ñépp gis ko te jommi ci waaye mu wax ak ñoom ci saasi ne leen takk leen seen fit man la bu tit noonu mu fekk si leen ci gaal gi ngelaw li ne tekk njàqare taalibe ya nag weesu dayo ndaxte seen xool dafa fat ba réere mbir kéemaan gi yeesu defoon ci mburu yi bi nga xamee ne jàll nañu ba egg ca diwaanu senesaret ñu teer fa génn ca gaal ya ca ëllëg sa mbooloo ma des ca geneen wàllu dex ga gis ne genn gaal rekk ga fa nekkoon dem na xam na ñu ne yeesu bokk ko woon ak taalibe ya ndaxte ñoom rekk a àndoon bi mbooloo ma gisee ne yéesu walla taalibe ya kenn nekkatu fa ñu dugg ca gaal yooyu dem seeti ko bi ñu fekkee yeesu ca geneen wàllu dex ga ñu ne ko kilifa gi kañ nga fi ñëw yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax firnde yi ngeen gis taxul ngeen may seet yéen a ngi may wër ndax mburu mi ngeen lekk ba suur bu leen liggéeyal ñam wu yàqu li gën mooy ñam wuy sax ba abadan tey joxe dund gu dul jeex ñam woowule doomu nit ki dina leen ko jox ndaxte moom la yàlla baay bi tànn mu nekk ndawam nanu taxaw fi tuuti lu taxoon yéesu wax mbooloo ma ne bu leen liggéeyel ñam wu yàqu ndax loolu dafay tekki ne warunu liggéey ngir am lu ñu lekk déedéet tekkiwul loolu ndaxte kàddug yàlla nee na itam ku liggéeyul du lekk lu tax kon yeesu ne bu leen liggéeyal ñam wu yàqu li yeesu doon wax mooy lii ku liggéeyal sa biir rekk tey wut yëfi àddina kese dinga mujj ñàkk lépp ndaxte sa yaram dina yàqu te dellu di pënd waaye am na lu nekk ci sa yaram lu dul yàqu mukk mooy sa ruu ruuwu nit dafay sax ba faw ci jataayu yàlla mbaa ci safara su dul fay mukk looloo taxoon yéesu ne bu leen liggéeyal ñam wuy yàqu li gën mooy ñam wuy sax abadan tey joxe dund gu dul jeex noonu la yéesu arto mbooloo ma ngir ñu bañ a fonk ñam wuy yàqu rekk waaye ngir ñu fonk itam kàddug yàlla gi dul wey mukk ndaxte mbind mi nee na nit du dunde mburu rekk waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñu yàlla moom la yeesu wax waaye ndeysaan lu ëpp ci nit ña wër yeesu faale wuñu yàlla te gëmuñu ki yàlla yónni feesal seeni koll ak aw ñam moo leen gënaloon feesal seeni xol dëgg ki leen mën a musal ci àtteb yàlla looloo taxoon yeesu ne leen bu leen liggéeyal ñam wuy yàqu li gën mooy ñam wuy sax abadan tey joxe dund gudul jeex noonu ñu laaj ko ne lu nu wara liggéey ngir matal jëf yi neex yàlla yeesu tontu leen ne jëf ji neex yàlla moo di gëm ki mu yónni ndax dégg ngeen tontu bu naka la doom aadama mi sosoo ci bàkkaar mën a neexe yàlla ndax mën nanu liggéey ngir matal jëf yi neex yàlla ndax mën nanu musal sunu bopp ci doole dooley seytaane ak bàkkaar ndax mën nanu dem ba am xol bu sell te mat sëkk ni ko yàlla bëgge mukk lu bant yàgg-yàgg ci ndox du tax mu soppaliku mukk jasit kon nag naka la doom aadama mën a neexe yàlla lan la borom bi yéesu wax ci loolu mu ne jëf ji neex yàlla moo di gëm ki mu yónni lenn rekk mooy li nit mën a def ngir neex yàlla moo di gëm ramukat bu sell bi mu yónni waaye gis nanu ne lu ëpp ci mbooloo ma gëmuñu woon ne yéesu mooy musalkat bi yàlla yónni loolu moo taxoon ñu ne ko ban firnde nga nu mën a won ngir nu gëm la ban liggéey nga nara def sunuy maam dunde nañu mànn ca màndig ma ndaxte mbind mi nee na jox naa leen ñu lekk ñam wu wàcce ca asamaan yeesu waxaat ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax du muusa moo leen jox ñam woowu wàcce ca asamaan sama baay ci boppam moo leen di jox ñam wu wóor wi wàcce ca asamaan ndaxte ñam wi yàlla di joxe mooy ñam wi wàcce ci asamaan tey jox àddina si dund gi ñu ne ko nag sang bi kon deenu faral di jox ci ñam woowu yeesu tontu leen ne man may ñam wi joxe dund gi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar ci wax yooyu nag yeesoo ngi doon wax ne ni yàlla wàcceele ca asamaan bani israel aw ñam diirub ñeen fukki at ngir ñu bañ a dee ci màndiŋ ma noonu la yàlla wàcceele doomi aadama yépp ñam wi joxe dund gudul jeex gi ngir ngeen baña a sànku ci seen biir bàkkaar ana ñam woowuy joxe dund gudul jeex googu nag ndax am na ñam ci àddina woo xam ne soo ko lekke dinga mën a dund ci jataayu yàlla ba faw déedéet loolu amul lan nag mooy ñam wiy joxe dund gu jeex gi lan la borom bi yeesu wax ci loolu nanu ko dégluwaat yeesu nee na man maay ñam wiy joxe dund gi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku gëm doo mar waaye wax naa leen ko ba noppi gis ngeen ma te taxul ngeen gëm képp ku ma yàlla baay bi jox dina ñëw ci man te duma dàq mukk ki may fekk si ndaxte lii mooy bëggu-bëggu baay bi képp ku gis doom ji te gëm ko am dund gudul jeex te bés bu mujj ba dina ko dekkal ci kaw loolu yawut ya tàmbale ñurumtu yeesu ndaxte dafa ne may ñam wi wàcce ca asamaan ñu naan ndax kii du yeesu doomu yuusufa xam na nu ndeyam mag baayam kon nag lu tax léegi mu naan euh, mu ngi jóge ci asamaan yeesu ne leen bàyyi leen seen ñurumtu bi ku déglu te nangu waxi yàlla baay bi dina ñëw ci man tekkiwul ne kenn mës na gis baay bi ki jóge ci yàlla dong nga ko gis ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku gëm am nga dund gudul jeex maay ñam wi joxe dund gi seeni maam lekk nañu mànn ma ca mànding ma teewul dee nañu waaye ñam wi jóge asamaan ku ko lekk doo dee man maay ñam wi dund te wàcce asamaan ku lekk ci ñam wi dinga dund ba faaw bi ñu dégloo yeesu ba noppi taalibeem yu bari nee nañu ah njàngale mii de jafe na kan moo ko mën a yéesu gis ne taalibeem yaa ngi ñurumtu loolu mu ne leen ndax li ma leen wax daleen a jaaxal lan mooy am nag su fekkee gis ngeen doomu nit ki dellu yéeg fa mu jëkkoon a nekk xelu yàlla mi mooy joxe dund gi ñam wi jëriñul dara kàddu yi ma leen wax ci xelum yàlla lañu jóge te ñooy joxe dund gi waaye am na ci seen biir ñu ko gëmul ndaxte yeesu xamoon na ca njàlbeen ga ñan ñoo ko waroon a gëmadi ak kan moo ko waroon a wor ci loolu taalibe yu bare dëpp bañatee ànd ak moom yeesu daldi wax ak fukki taalibe yi ak ñaar ne leen mbaa bëgguleen a dem yéen itam simon peer na ko borom bi ci kan lanuy dem yaa yor kàddu yi joxe dund gu dul jeex gi léegi nun gëm nanu te xam nanu ne yaa di aji sell ji jóge ci yàlla amin noonu gis nanu ni ñu bare dëppe bañate ànd ak yéesu ndax njàngale mu jafe mi waaye ci biir ñi toppoon yéesu amoon na ci ñoo xam ne mënuñu ko woon a bàyyi ndaxte wóoroon na leen ne ci dëgg-dëgg yéesu mooy almasi bi di aji sell ji jóge ci yàlla di ñam wiy joxe dund gu dul jeex gi noonu la gannaaw ba nga xamee kan mooy yéesu ci dëgg-dëgg ak ni mu mel doo mënate doyloo beneen boroom mukk yeesu moom kenn mooy ñam wi joxe dund gi te naka noonu moom kenn mën a doy xolu ki xiif te mar xam-xamu yoonu mucc ak diggante bu jegeek yàlla yow miy déglu tey ndax xiif nga te mar dund dul jeex ndax bëgg nga am kóolute fa kanam yàlla fii ci àddina ak ca alaxira kon nga def sa xel ci woote bu rëy bi bàyyi ko ci gémmiñu yéesu boroom bi mu ne ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis dinaa leen may noflaay man may ñam wiy joxe dund gi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku gëm doo mar amin mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ci émission bi ñëw bu neexee yàlla dina nu jëm kanam ci linjiil ba dégg ni féewaloo amee ci biir mbooloo ma ndax yeesu su fekkee ne am ngeen lu ngeen bëgg a laaj ci li ñu jàng tey na ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li borom bi yeesu wax moom ci boppam bi mu naan man maay ñam wi joxe dund gi ku ñëw ci man doo xiif mukk